Assalamualaikum sama gars ku dugg rek nga partager hein ya. ku dugg nga partager pour patriote hein ya. Voilà, maa je suis ci kaw VDN bi ah gis pont bi Vous ah. yéen a gis pont bi Vous voyez a gis pont bi ba pare ku Je rek partager parce que lii information là boo xamante il faut ñu joxe ko yéen a gis anarchie bi nekk ci dëkk bi ah xëcc leen ko xoolal gis ngeen de c'est de l'anarchie li yeb ñu romb ko xolal romb ko hein ah. yeen patriote yi ak yeen jeune sénégalais la laay waxal ah ok fi place su place su benen benen benen benen beneen voilà coup de rek na nga partagé Hein? Ah.

moo tax mu koy protéger moom Antoine ñàkk jom ok ci même guddi gi quatre heures du matin gis ngeen ko lii beneen ko beneen def lii lenn kese la nguur buy jeex day jeex wallahi billahi 2007 laa commencé woon wax ak yéen ñu naan waa ji day saaga te xamu leen lan moo nekk ci xolu doomu sénégalais yi xamu leen ko Macky Sall waxuma la waxuma yow yàlla sax fi mu toll nii dalaa wan ginnaaw yàlla suñu borom daf la wan ginnaaw kenn amul kenn ku yàlla bind ku la mën a rawale man maa la ko wax Assane Diouf waxoon naa la ko 2007 août 2007 le 30 nga ma jëlee Amérique wàcce ma Sénégal ma ne la Macky Sall jur nga ay junniy Assane Diouf ay junniy Assane Diouf moo indi Ousmane Sonko moo la indil Barthélemy moo la indil borom place bii ngay xeex tey wallahi man maa la wax ne yow 2024 2024 sens la sax pour yow nga war fee nekk ba boobu parce que ñun dañu respecter suñuy institution mais yow 2024 le 24 février yee war na la fekk nga pare say bagage parce que xolom loolu lebale dinañ la ko fay gis nga lii nii ah ki ko réa ki ko réalisé ah man ak moom ñoo nekkandoo woon Amérique li nga ma def rek nga ko def te noonu ngay def yeneen doomu sénégalais noonu nga bëgg a def Ousmane Sonko mais du nekk xeex ñu ak dal ci suñu kaw wallahi da lay gën a néewal doole parce que ñun ñooy Sénégal yow doo Sénégal de yow doo Sénégal te li nga yàq fii ah ma gis Antoine ñàkk jom dugg fii di protéger benen jeune demb rek xawma barki demb nan dañuy protéger benen jeune parce que xam nga institution yi wala ñun dañu am li non da ngeen di kàcc musu leen wax deug te du ngeen wax deug mom ngeen ni faatuwaale motax ma ñew pour tontu leen amul leen communication ñun ñoo leen ëpp communication te fim toll ni amul leen ordre amul leen ay institution institution yëpp ñi ngeen ni bañ ñu yor ko ñoko yor benn ci man Assane Diouf waxoon naa la ko 2017 te heure bu ma la ko waxee damay waat nag sénégalais yi naan waa ji day saaga rek wallahi billahi barke yonanti yàlla Muhammad barke Muhammadu rasulullahi loolu rek mooy waat parce que leneen luñ fi waate rek ay caaxaan la billahi wallahi wa taalahi barke yonanti yàlla Muhammad dooñu mooy yow dooñu mooy te doo dooñu rëcc ilaa yow mi diin bu la neexee jàppal population sénégalais bi yëpp bu la neexee jàppal activiste yëpp jàppal maire yi jàppal politiciens yi xolal ay gone yu ndaw yu nekk ci mbedd mi ñoo lay duma barke yonent yàlla Muhammad li nga yàq fii ah li nga yàq fii ah di nga ko fay di nga ko fay parce que su ma nee la di nga ko fay mooy di nga ko fay parce que yow loo lebale dinañ la ko fay dinañ ko fay sa njaboot te information bi gën a bon ci yow mooy ah ngeen di génn di def samblant bërki Dembo Ndiaye ay jeune dee ci mbedd mi ndax seen naafiq ak seeni kàcc nga génn yor sa oto ànd ak sa jabar naa da ngay naani koko boobu nga xam ne yow safara mi ngi sa kaw te du la wàcc ilaa yow mi diini maa la ko wax man nag moom faalewu ma kaso lu tax ma kaso mbindeef laa bu juddoo Sénégal ki ma yaakaar di xaadimu rasul gëm Seydina Muhammad ak liñ ko teg yëpp Allah motax man Assane Diouf faalewu ma kaso dootuma saaga parce que li tax am kilifa mu am luko desa ci aduna mu tok ñaan ma lim may ñaan ma may koko ci ay Toga toga khalifa general général des mu ñaan ma lim may ñaan ma may koko ci ay Toga toog ak sama serigne mam Cheikh Anta borom gawan mu ñaan ma lim may ñaan ma may koko ci ay kap salam Daaru salam 2022 ba mu jaral ko yëkëti ak Cheikh tek ko sama loss bi motax dootuma saga mais xolal ay duma man mako mom moom te wallahi billahi dina jital ñi leen duma man mako wax nañ leen def lii ni ah li mo upp importance li li fi nekkon mo upp importance ci du jeune bobu ngay wax li mo upp importance li ngeen di jema protéger barke yonent yàlla moo amee parce que ay jeunes ñoo fi nekk ak ay étrangers yu joggé ci àll bi bàyyi seen dëkk ñëw am confiance ci Sénégal xoolal partenariat ak beneen doomu sénégalais xoolal toog nii jaaxle ngeen leen di yàqal ba pare ngeen ne yéen yéen a ngi doxal démocratie ngeen taxaw ne yéen da ngeen a am xam nga yërmande ci sénégalais yi amu leen benn yërmande ñoo leen ëpp yërmande te xoolal suñu yërmande ci yéen xam ngeen fi muy mujjee dama la koy waxaat le 30 mi ngi ñëw ah le 30 ah le 30 muy fanweeri fan ci weer wi ñu nek nga wara préparer yow pour fête de l'indépendance wala préparer ce fête de l'indépendance su parce que ñun amuñu indépendance yow xam nga lolu sax vidéo bi man gëj naa ci Facebook bi ah mais li dama bëgg opinion internationale bi ah ngeen xam ne ñii di bennoo bokk yaakaar ñuy bennoo tas yaakaaru askan bi ah tasati nañu yaakaaru beneen doomu sénégalais moo tax bu petit Antoine génnee naan noo dañuy protégé benn benn jeune sénégalais wala dara koo xamante ni bitig bi mu yor matul sax 3 mètres ñëw fekk koo xamante ni mi ngi employé xala ñii ñëpp dañuy xëy suba nekk ay chômeur moo tax li ngeen di wax yëpp ay kàcc la barki Serigne Touba te kenn kenn ku yàlla bind ci yéen muy président muy premier ministre muy ministre de l' intérieur muy ministre de la justice ak seen petit xam nga menteur boobu amul kenn ku ñu mën a téye ñi kenn mënuñoo téye te Ousmane Sonko mi tax képp ku ànd ak moom ngeen wër di ngeen yàqal wallahi billahi ku ko laal dee barke maam Cheikh Ibrahima Fall ku ko laal dee waxoon naa leen ko bi ma koy wax boobu xolal aji saar ñëwagul xam li ma la maam mbay mbaam mi ñang ñëwagul woon yaa ngi dégg li ma la parce que ñun ñooy doomu sénégalais yi te la ma waxoon bis bu nekk day exister wallahi billahi ñoo ngi seen kaw te duñu leen bàyyi ilaa yow mi diin ñëwal ñun xam nañ lu domaine national moom xam nañ lu domaine national mooma ñëwal seen potolamp bi fi mu yema ah? potolamp bi fi mu yema ah? foofu la domaine national yem potolamp bee fi mu yem foofu la domaine national yem kon ki ñëw def lii ah ñëwul woon ñëwul woon pour xam nga wàccee ku nekk ci kaw domaine national bi dafa ñëwoon pour yàqal ay patriotes ñu taxaw di xeexal seen réew ñun xam nañu lépp duñu ay dof de yéen yéen ay yi parce que dof weesuwul ki jafandu ci nguur ah ñu teg la ci nguur nga ne yow doo bàyyi nguur ba mu jaral la ngay jël sa bakkanu askan wallahi billahi ma waatalaat leen ko du jeex te du mës a jeex ñun munu leen ñoo jeexal te balaa ñoo jeex yéen wallahi billahi yéen lu ngeen amoon ci xam-xam wala lu ngeen doon dajale day jeex tàkk xoolal yàlla leen yàlla defal jàmm yéen patriote yi Sénégal waaye wan leen déglu wan Yeah, é, muito legal, muito legal. solo ini. perception station totale bi amul si ak fii loo aligné te kenn laalu ko hmm. jël ko live nga wane ko parce que ñoom Aziz Ndiaye bi kenn laalu ko ñoom ñoo ñu gën a jege télé bi man Pathé nga boole ko ci live bi ñu mu téye dañoo yàq place ngeen gis image yi ngeen xam lan mooy yàqal nit xam nga dem rajaxe palaasu jàmbur xam nga ci maa tey ak lenn kese parce que Sénégal gi yëpp fi mu toll nii ay patriote yéen Sénégal gi yëpp ay Pastef lañ parce que nit ci sa réew da nga war a am Pastef pour sa réew loolu kese la da war a am Pastef pour sa réew mooy li booy Sonko yi di wax projet bi projet bi projet bi du Ousmane Sonko du Ousmane Sonko kese mais dañ leen di woon xool leen ñoom xool leen xoolal drapeau national xool leen ñoom ci kaw domaine national bi lañu tabax seen parking xool leen en tant que état ngay violer xam nga droit wu doomu aadama yi xool leen miir bi ba mu jeex top leen mir bi ba mu jeex ngeen xol après ñu xam lan moy deug ak lan moy fen parce que li ñuy wax ñun waxu ñuko pour tromper sénégalais waxu ñuko pour pour pour dugg ci bop sénégalais dañ koy wax pour lu jariñ sénégalais lu jariñ sénégalais lu jariñ sénégalais xol leen seen bi ñom li yépp xolal même sénégalais yi amuñu waneel territoire bi mbay amuñu espace bu ñu dox ak tali bi même diggante patalamp bi ak tali bi xoolal nit mënu fi jaar nga romb foofu waneel xolal anarchie bi xolal lii yëpp xoolal lii yëpp mais fii ñi fi nekk genn wàll yëpp ay surga Macky Sall lañ kenn du leen laal kenn du leen laal Ken du leen laal xool leen rek lii du domaine national ah lii du domaine national ah gis ngeen ko ah lii yëpp ci domaine national la bok lii yëpp ci domaine national la bok mais duñ leen laal parce que ñoom ñëpp ay APR lañu ay APR ay surga Macky sàll ay jeunes yoo xamante ni xolal ñoom nanguwuñoo ñàkk xamuñu luy ñàkk ñoom noonu lañu ñu bëgg a dundee ci kaw suuf bu ñu naree ñàkk ñànki bu ñu naree ñàkk xolal jaay seen bopp mbaa ñu jaay seen askan. jaay seen bopp xool leen gendarmerie bi fi mu yem xool leen miiru gendarmerie bi xool leen ko miiru gendarmerie baa ngi noonu ah. ok. xool leen anarchie bi après xool lii yëpp tajuñu ko tajuñu ci dara mais dañu dem cibler benn patriote sénégalais xamali ba lax pour yàqal ko alalam parce que xamuñu lan mooy secret bi nag ah xamuñu luy secret bi de secret bi mooy dëkk boo xamante ni politique gu Sénégal musu faa dem muy Californie Californie biir Amérique foofu la Cheikh Thiam dem ànd ak population ba fa nekk bërki dem boo njaay le 19 organiser fa meeting boo xamante ni dafa toj seen bopp loolu moo waral lii yëpp wallahi loolu moo waral lii yëpp du ñu bàyyi kenn mu dund du ñu bàyyi kenn mu liggéey li mu war a liggéey anarchie baa ngi nii anarchie baa ngi nii ci kaw tali bi kenn lijjantiwu ko kenn waxu ci mais dañuy dem di attaquer ay patriote xam di japp ay jeunes sénégalais di duggal ci kasso bi xam nga ba paré nan dañ leen ni protéger li yëpp anarchie la wonel li yëpp li ñi ñëpp ci domaine domaine national lañu nek mais kenn toju leen de parce que nangu nañoo jaay seen bop jaay seen askan mais ñi ko nangul xolal yee dañ leen di toroxal chaque jour dañ leen di toroxal foofu lañ toll foofu lañ toll yéen patriote yi comme ni ma leen koy waxee chaque jour rek man la Assane Diouf nekkatuñu ci jeunesse bu Sénégal laay waxal jeunesse bu Sénégal laay waxal résistance ah résister koñ bi nga dëkk sax koñ bi nga dëkk nekk fa ak say nawle buñ la naree néewal doole di nga résister pour kenn bañ laa néewal doole waxuma laa nag réew mi nga dëkk réew mi nga dëkk moo résistance xoolal ci suñu constitution la nekk résistance droit international la gis ngeen français hein gis français barki dem, ak dem, gis France hein ah? leçon la pour yéen ngeen xam ne nit ki dafa am droit xeex àqam ak yelleefam pas ngay dox ci mbedd mi di def lu la neex wala di dawal nu la neexee wala di di di di sa table fu la neexee wala def lu neex rek bu ñu waxee ne mbedd mi mbeddum buur non non non du parce que bu mbedd mi nekkoon ah, ñoo ci Cheikh ah, yee bari na lu ñu war a déjjati ci yoon bi bari na lu ñu waroon a déjjati ci yoon bi mais ñi ñu toj seen i place yëpp mooy ñi nga xamante ni dañoo osé wax ne ay patriote lañu xamali ma la wax ne Pastef la ñu àndal wax ne Ousmane Sonko la ñu àndal moo tax ñu leen di xeex billaay wallaay moo tax xolal xeex leen xeex bi xeex leen xeex bi yéen jeunesse bu Sénégal xeex leen xeex bi ku réew nga mag mu réew nga yow ku réew nga xam nga ko sax dawal fi li lay wax rek ci live bi li lay wax xoolal mi ngi yor ay potu tamate pour auto bo xamne potu tamate la xoolal ma ngi koy collectionné mi ngi may gis mais mi ngi may gëna dag xamali ma la dima ma wan ne boo ma xoosee amul problème ma ngi wax ak mom muy rétan quoi xam nga indiscipline defarul am rew te tànk mi ngi ci ñun wallahi billahi kenn munu ñoo gérer

ñun ñu bëgg a dund normal quoi moo tax ñii ñuy jiite yàpp ñu moo ñii ñu jiite respecté wuñu parce que nit boo respecté wul sa bopp respecté woo sa askan ku la mënti jiite ci àdduna du la respecté ku la mënti jiite ci àdduna du la respecté affaire yi nekkatul toog ci canapé yi rek affaire yi nekkatul xoolal toog di xoole justice bi jaarul ci yoon état bi jaarul ci yoon institution yi ñuy wax benn jaaru ci ci yoon du benn ci institution Sénégal yi bu tegu ci yoon te ñu ñëpp xam nañ ko même ñoom ci seen biir xam nañ ne amuñ dañ lay ree sax boo leen koy wax dañ lay reetaan duñ ci mer de dañ lay reetaan parce que dañuy protéger seen intérêt foofu la Sénégal toll moo tax yéen jeunesse bi yéen lay waxal man dafa am lu ma naqari ci sama papa am lu ma naqari sama yaay moo tax may xeex fi mu toll nii moo tax ma nekk ci xeex bi am loo xamante nii man maa koy xeexal sama bopp kenn mënu ma koo xeexal ku dul man xoolal damay dem xeex ko kenn mënu ci dara par force laay dem xeexi ko foofu ngeen toll yen jeunesse bu Sénégal génn leen ngeen xeex seen démocratie résistance résistance

mën nañoo xeex mën nañoo xeex mais waruñoo yàq parce que ñun la ñuy yàq yee ñi ñuy xeexal moomuñu ko ñun ñoo ko moom li ñuy yàq yëpp ñoo ko moom suñu alal la du alalu kenn ku nekk ci état bu senegal du alalu Macky Sall suñu alal la moo tax waruñu ko yàq amna benen façon xex bu xew ci aduna bi bo xamanteni mo moo mo a efficace moy li ma yor Facebook le réveil des conscients le réveil des conscients manam yee sen seen xel yi comme ni ma ko daan waxee ay Sénégal yeewu leen woo yeewu leen ngir yàlla yeewu leen yeewu di seetaan ay théâtre yewu du topp terrain yi di football yeewu du du Sadio Mané Liverpool du du Bayern Dominique du leneen yeewu mooy xool lii xew sa réew di bundu xatal say mbokk xolal nga xeex ci mu bañ a egsi ci yow parce que lii di am senegal nii yee bi ma koy commencé xeex mais dañ doon wax waa day saaga waa ji ah li muy wax yëpp dëgg la mais day saaga fekk boobu que leen di duma mi ngi leen duma rek mingi tok di rek communication bobu communication dafa am ci doomu adama pour la démocratie population ak jeunesse Sénégal man la Assane Diouf dama Je bay dogo wacc nak sonu tay sama xol neexul sama doom ji may de di liggéey rek xam parce que defuma dara mais depuis ma yeewoo yëg affaire Cheikh Thiam bi te démb avant may tëdd ma gis xam nga Antoine ñàkk jom génn amul lu muy def lu dul di wane benn jeune naan dañ leen di protéger ba pare quatre heures du matin ñu dem yàqal beneen xam nga jeune xamali ma la sénégalais patriote boo xamante ni deful lu liggéey ak njabootam deful ludul liggéey ak njabootam moo tax yàlla leen yàlla defal jàmm yéen patriotes yi defal ko jeunesse bu Sénégal defal ko mboolem jullit man la Assane Diouf maa ngi leen di remercier yéen yëpp yàlla leen yàlla defal jàmm ah. yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ko sénégalais yëpp defal ko sénégalais yëpp bàyyi leen xel ci li ma leen wax bàyyi leen xel ci li ma leen wax bépp jeune bu fi yor doole rek. Anda ak Ousmane Sonko ye protéger sa alal parce que xolal ñi ngi ñew yàqal lo bép jeune bu fi yor sa làmmiñ di wax xolal protéger say tamit man ma leen ko wax parce que dañ leena soxla dañ leena soxla te dem di dankalo ci kasso yi han ah, ye dankalo ci mbedd me ko gën dem di dankalo ji ci kasso yi dem dankalo ci mbedd me ko gën te xolal nit boy xex ak mom. ànd moom dem quart de nga duma ko nga ànd moom dem demi finale duma ko ba mu desale finale yee xoolal da ngaa war a conserver sa énergie toog jàpp sa njaamur moo tax dégg naa leen dégg naa leen Assane moom ci lu mu nekk Assane Diouf dafa noppi Assane Diouf xanaa waa état man yàlla bindul doomu aadama bi mën a fees sama bët amul benn mbindeefu yàlla bu nekk fii biir senegal bu yor lu fees sama bët amul parce que xoolal bërki Dembo Njaay 2017 bi may jóge États-Unis am na benn xale bu jigéen bu ñuy wax Carly bii mës na ñëw Nouvelle-Orléans ñëw sama taabal di jënd ay saagu imitation yi may waxtaan ak moom Carly bii may waxtaan ak moom ci kaw waxtan biñ doon waxtan gis nga biñu ñu ba waxtan bi dé lim ma ñëk wax lu ma marqué man suma sañon Afrique lay dëkk suma sañon Afrique lay dëkk yaa ngi dégg li ma la wax yàlla dëkkalewu ko Afrique mais xoolal tey bu ne cëpp Afrique milliardaire lay doon ci Bi patriote woykat wallaahi moo tax xolal liggéey leen pour seen askan liggéey leen pour seen réew xamata liggéey bi du ay waxu kese du ay wax rek dafa ànd ak jëf dafa ànd ak yëngatu dafa ànd ak taxawaay dafa ànd ak wàcc canapé yi dafa ànd ak xolal maanaam ignorance maanaam ignorance bi may wax nag pas nga ignorer actualité mais ignorer ñi nga xamanteni ni dañ leen di pour ñu wax ci ku melni Assane Diouf wala ku melni Ousmane Sonko wala Barthélemy Diaz wala keneen xam nga bu ko défé patriote yëpp génn xam nga wara taxaw ku nekk di tontu non ñun yóbboo nekkatuñu foofu nekkatuñu fofu patriotisme bi ñuy woté amul njublan amul sàcc amul wax lu dul dëgg amul xam nga ah, man la man la amul defna defna amul tok di fenal sa morom góor nan li la mel wala ne la mel te melul nonu amul tamit xolal amul al alfiqa ndax al alfiqa wessul yow nga deung ba aduna bi yow xamne ken gënu la bon ngay tok di wote njub lolou moy al alfiqa yàlla na len yàlla defal jàmm yéen wa Sénégal defal ko wa Géejawaay fi may yeewoo defal ko njëm goodbye Mbaye